Thank you. mbokk yi crédit ñoo ngi leen di euh, nuyu di wax euh, ku nekk sa kër juma bu mubarak waaye nag di ci jiital ñi nga xamante ne bi ñu ngi fii euh, ci sunu plateau mbokk yi saa su ne dañu koy ñaan jàmm ak salaam te mbokk yi nag xam ngeen ne sénégal muy dëkk bi nga xamante ne bi muy musulman yi ak chrétien yi macha allah dañoo àndandoo tan yàll na ànd bi yàgg bu ñu ne ajuma ñu ne jullit yi ñu ne dimanche ñu ne chrétien yi kon loolu yëpp àndandoo nañ ko mbokk yi respecté ko kon di continuer encore une fois di ñaanal sénégal jàmm ak salaam di ko ñaanal dëkk yi ñu wër parce que nag soo amee jàmm te ña la wër amuñu jàmm jàmm ja defe naan du mën a sori mbokk yi ñi nga xamante ne bi dañoo feebar tëdd ci hôpitaux yi ah, ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal ñu wér ak wérle parce que am na solo boo wéree te wérle am problème waaye nag ñi nga xamante ne ñu ngi ci yi di ñu wéttalikoo ah rts daal ne la leen jàbb loxo ne leen yàlla yàlla defal leen jàmm ñi toog ci kër yi tamit di souffrir léeg-léeg yàlla na yàlla defal leen jàmm waaye nag dafa am ay téléspectateurs yu xamante ne bi mbokk yi ñi ngi ci prison wu Sénégal yi ñoom itamit di wéttalikoo RTS2 ñoo ngi leen di nuyu rawatina nag wa camp pénal parce que léeg-léeg mbokk dañuy jot sen ay yobante euh kon nak me fatali mbokk yi ne yéen a ñuy jot ci canal 5 bu TNT seen émission euh, Tam Tam RTS 2 ñu ñëw ak yéen nak ci li nga xamante mom moy éducation et civisme ànd ci ak madame Awa Ndoy Diop tay defe naa euh, duma djum ci euh, sant bi alors tey ñu indi lu am solo mbokk muy le numérique au service de l'éducation dinañ ci waxtaan bu baax baax bu ci kaname ak invité am bu ci lool dañuy ñëw ci ijab du jour parce que xam ngeen nak machallah vendredi bi suñu sœur yi dañuy falal di indi ay façon euh, su euh, magique ñëw ak euh, façon bu ko ñu ah, la tonton Lamine nara apprécier tonton Lamine ci daf figure soit mu nekk ñi nga dañu ci musique wala ñi nga dañu film tay nak mo une très grande figure bu théâtre ak vraiment comédie fi ci Sénégal dinañ ko présenter dans quelques instants euh, sa suné ne sunu invité dañuy am solo lol ci ñun parce que nak euh, dañuy indil ay xam-xam yu am solo euh, tay nak ñuy kontaan de recevoir monsieur Mouhamadou Mustapha John Touré dit consultant en informatique way nak di recevoir tonton Daniel Lopi dit acteur comédien xamna naa xamé ngeen ko mais danañu yaatal ak mom waxtaan bu am solo bokki yi madame Régie dellu siwaat waaw nag euh, dañuy euh, kontaan saa su ne mbokk yi di feggoo ak euh, Awa Ndoye Diop parce que nag moom nag vraiment léegi taxaw naa ko tàmm ci moom dafa am ay style tay nak style bi mu ñu indil dana dana ma wax fan la ko jëlé parce que dal gis na mo am lu mu lonk fi affaire bi wacc xawma ma Inde la xawma fan la mais en tout cas dañuy contane mbokk yi parce que euh, bu ñu ñëwé ci éducation et civisme ak fi Sénégal toll mbokk yi dañuy contane sa su ne non seulement diko ko déglu mom waye di déglu ay invité parce que nak defe naa ne muy man ak yeen ñi nga xamante yeen ñi sétane dañu ko soxlo pour gëna défarat li nga xamante bi moy sunu gal parce que gal gi kat bëggunu mu def ni danoo bëgg gal gi def ni ba paré dal di dem ci kanam madame Awa Diop maa ngi lay nuyu dina dalal jàmm bu baax a baax ci plateau tam tam sa su di contane bo nuyo ba pare nga wax ma euh, style bi lan la <laughs> ya xam nuyu comme nous ma la ko faral di rek c'est toujours un plaisir de partager avec toi le plateau uh-huh. parce que tu me donnes la joie de vivre voilà bien vrai que j'en ai mais tu me donnes encore la joie de vivre <laughs> <laughs> merci beaucoup di mm-hmm. nuyu sunu invité Moustapha. Mm-hmm. Euh, partenaire euh, plusieurs domaines. Mm-hmm. Euh, di ko nuyu du remercier si le fait que mu accepté sunu invitation. di nuyu aussi tonton Lopi. mi ñu partager le plateau bi toujours comme nous on dit damay tout le temps mon salutation sama tonton. sama partenaire. Hein? tonton tonton Lamine dindil njaay bi j'ai hein? fait des efforts pour Ndoye Diop. oui j'ai vu. bah voilà mais Ndiaye bi euh, les temps sont durs tonton. non mais Ndiaye Diop Ndoye non déedéet Ndiaye bi. <laughs> di nuyu aussi en même temps l'équipe du cabinet Active Consul. Absolument. nga xamante ni ñoom ñoo tax ma peut-être que nous avons occasion aussi revenir sur tout ce qu'on fait au sein du cabinet lan avons tax ñu suñu toogaay ci plateau bi. très bien alors nous avons dama dugg ba Rwanda. waaw xam nga man dama Rwanda. ok. tonton non tey Rwanda laa dem. Ah, alors xam nga lu tax la euh, par une Rwandaise. lu tax nag euh, euh, affaire bi dafa mel ni dafa lëkkaloo ak li ñu indil tey. Uh-huh. parce que bu nu waxee bi uh-huh. dañuy laal bu baax a baax Rwanda. Rwanda parce que jot na nañoo ñoom organisé wu. pour defar sen deuk bamou set. bu sen deuk bamou bax mhm. donc je veux dire en tout cas mhm. euh, très bien inspiré hein. voilà voilà <laughs> en tout cas merci. <laughs> merci euh, ñi euh, di dalal jàmm bu baax a baax mbokk yi ñu seetaan tonton Lamine Ndiaye suñu ñu tonton Lamine Ndiaye muy suñu papa comme ni ñu ko waxee di suñu tonton di suñu njiit di ko nga xamante ne bii saa xam-xam yu am solo lay indi ci ñun et puis en plus quand il est quand il est sur le plateau il nous apaise mm. et ça fait vraiment du bien kon ñu ne mag mat naa bàyyi tonton Lamine maa ngi lay nuyu di la dalal jam c'est toujours un très grand plaisir sañ sañse bi rafetna na. ma di la fay ci àqu lillahi mhm. bo le ci du nuyu ñi nga xamni ñom ñoom lañ lol ñuy téléspectateurs yi nga xamni ni bo ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom. absolument njëkk ak teranga. Mhm. rawatina ñi nga bamtu won sank daal ne mhm. ñi nek ci hôpitaux yi. toujours suñu xalé ngi ci moom mais na ñi nek ci prison yi. aussi tamit je crois que tout ce monde-là. ñom ñep ñoo ngi ñuy topp. absolument bo ci mhm. donc duñ def rek lu mooy waaf. ci seen mhm. bëgg-bëgg. dëgg la dibal leen rek kàddu gi nga xam ne mooy dox suñu diggante ñoom ak ñun. jërëjëf mais maa ngi wax sànq ne que sa sañsa bi aussi rafet na c'est très joli. très très joli bii nag mi ngi tudd yaa xam. ah ah bii foog ñu baptiser ko nag yaa xam. yaa xam la tudd. parce que yaa xam bi may wax. waaw. wëlbati leen rek. di nga xam fi ma jëm fan la. <laughs> <laughs> on doit vous indiquer. <laughs> c'est-à-dire yow yaham. ah <laughs> kon nak jeex da en tout cas ñi kontaan di fekk ak yow mbokk yi euh, di euh, dalal jàmm bu monsieur Mohamed Mustapha John Touré ma koy wax consultant en informatique monsieur Touré ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu euh, en tout cas c'est un très grand plaisir pour ñun di le recevoir parce que la ñu nar indil ba ca kanamee ak madame Awa Job dafa am solo ci ci réew mi ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax. ñu ngi lay fay di nuyu également ñepp ñu bokal plateau bi nuyu également tous les téléspectateurs les rafetlu également invitation bi. jërëjëf bu ñu bu ci kanam xam naa incha nañu euh, di dalal bu euh, tonton Daniel Lopi sank maa koy wax euh, di comédien tonton ñi ngi lay nuyu di la dalal jamm xamna né ne basin yeeg rafet na waaye tamit costume bi tamit mom ma nga place am quoi que nak Saint-Valentin yegg sey gaa waaye nag macha allah tonton Lopi ñi ngi lay dalal jamm c'est un plaisir de vous recevoir. Oh, ma ngi lay fay mhm. euh comme nous nous ko mon plaisir de partager le plateau parce que vraiment en dilettante <laughs> on sent que vraiment c'est animé donc nous sommes indignes en tant que bon artiste. Mm-hmm ci kanam nañ ci waxtaan. inshallah mm. euh, ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax c'est un honneur en tout cas am la fi ci sunu plateau mbokk yi ñu ñëw ak yeen ci tam tay bi nak ñëw ci éducation et civisme andi ci ak euh, madame Awa job ak ñi nga xamanteni ne moom lay andal euh, di def ay reportage am solo mu ne lan tay le numérique au service de l'éducation mbokk yi ñu dem xol lan lañ ci indil delu nak waxtane ko ci sunu plateau.

le plus jeune âge nous euh, impliqué xale yi ñu mën déjà euh, maîtriser euh, outil boobu. Wa, ni ma que c'est mooy am na solo bu parce que dañuy permettre nous def dañuy faciliter travail bi daal recherche comme genre bu la joxee un travail boo war a def du du quoi parce que vous duggee ci internet pratiquement lépp am c'est vrai que internet bi. que y a des soucis. Amener des sites yoo xam nit ñi nañ facilement qui ne sont pas de bons sites restreindre un peu ce truc là Vous nit ñi vraiment yenn sites yi xale yi bañ si mën a dugg. tey xale bi dañ ko war jàngal comporté ci euh, numérique bi xale bi dañ ko war jàngal utilisation am ay loi yu koy euh, yu koy définir tey am na ay moteur de recherche yoo xamante exclusivement dédié euh, aux enfants. boo jàngalul sa doom tey am na lu nga xamante ni tey boo wutalee sa doom tablette wala nga wutal ko smartphone am na lu ñuy woowee contrôle parental nga mun ko activer sans pour autant nga violer intimité wu xale bi. am na njëriñ ñi mu fekk ñu baax ñu yar leen yaru diine fa tabaarakallaahu danañ ci yokkoo ndax mën nga ci sar sa lislaam jàng ci. dajale ci borom xam-xam yoo xamante ni macha allah livre yoo xam ne bu njëkk jàng dafa jafoon nga uti livre dëkk ak dëkk di recopier mais léegi fa tabaarakallaahu mën nga télécharger livre bi yëpp ci kii wala nga déglu yenn ojo yi borom xam-xam yi ñu lay indil waaye fu mu ne nii daal doy na waar doyin waar goo xam ne nii képp kuy waajur tiit nga tiitaange boo xam ne parce que yàq bi du léegi ëllëg la lii yàqu léegi ëllëg la ñu gis résultat bi ba tax na daal wax dëgg yàlla bu ñu fekkoon daal ñu toog toog bu rafet ah dana ñu mëna gungé am ci lu nga xamanteni dafa am solo donc tay di gëm lo xalé yi nan leen numérique bi baxul wala ni baxul moi je pense plutôt que dañ leen wara yar ci niñ ci jumtu kay yi naka lañ ko wara mëna utiliser il fallait que ñu défarat euh, jiko yi di xalat ëlëk c'est important aussi parce que xalé moy nek mak euh da ngay soralé né donc euh, war nga dem ba nek mak te bo nekké mak amna yeen souvenir yo xamanteni doto ko bo gis donc euh, di ñaaxat ndaw ñi mooy góor ñi di jigéen ñi même temps kenn ku si nekk nga xalaat sa ëllëg quoi parce que loolu moo ëpp solo. képp koo xam ne waajur nga day boo gisee ni muy demee nii léegi wax dëgg yàlla gis démb sa fit dana ne rëf. te bokk na ci li ko gën a gaaw yàq bi li ko gën a gaawal mooy internet bi nit ñi dinañu wax ne internet bi bu la fekkee nga net lu net rek nga ci kii wala bu fekkee nga netoo lu net di rek nga ci kon. fa la fu mu fekk nit ka rek fa la koy yóbbu. nit ku nekk responsable nga. waajur dafay dañ kumpa di yëddu doomam di xool li sa doom parce que xale yi léegi dañu nekk ci biir néeg bi nga nekk ak ñoom sax ñu ngi ci site yoo xamante ni maara déyim si. cas daal euh, li ci am solo euh, Awa mooy que tendre nga micro. Mhm. ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy sénégalais ku nekk wax ci li nga xalaat waaye defe naa ne mhm. euh, am tout tamit importance ñu faram-fàcce bu baax a baax numérique mooy lan mais mhm. la ma neex ci sujet bi nga indi mooy le numérique au service de l'éducation donc lu baax lañ ci jublu pour éducation ou pas non seulement xale yi mais ñëpp en général population bi parce que bu ñu éducation du xale kessé xam nga euh, limay may faral di wax rek les jeunes ont bon dos tout le temps dañ les jeunes les jeunes les jeunes xale yi xale mais tamen mag ñi ñi ngi nekk ci euh, numérique bi di def naka sa dul noonu donc bu ñuy wax éducation xam nga li ñuy wax nan bo nan bokuma ci bo moytul di nga accuser loo koo xamante ni yow ya ko jité problème bu amé ñun ñëpp ci lan bokk je suis responsable yow tu es responsable ku ci nekk am nga ci part de responsabilité boo war a kii bu ñu jàllax problème bi xale yi. Hmm. parce que xëy na xale yi am na ci ñoo xamante ni conscient nañu ba nga xamante ni am na ci yenn yoo xamante jomb nan ko def suñu te mag ñi di ko def. Hmm. donc euh, éducation biñ ko jëmale. Hmm. du cadre jàng école ba kese encore une fois. waxoon nañ fi ne euh, école dafay instruire. kër moom mooy éduquer. tout à fait donc éducation boobu il faut que ñu comprendre que ni. <coughs> <coughs> du si école ba commencé wul ci école ba ci kër gën la dooree. Mhm. après école bi li ñuy def rek mooy yokk xam. mottali donc il faut que ñun ñëpp ñu préparé wu ci ñuy mag di ndaw di meer di màgget ñun ñëpp ñu xam lan mooy numérique defe naa. sunu euh, hmm. euh, invité bi dinañu faram fàcceel lan hmm. mooy numérique ci hmm. olof. ba ñëpp mën a comprendre lan mooy baatu numérique balaa ñuy gën a mën a xuus ci sujet bi. je trouve. d'accord mhm. alors donc comme nous vous ko je pense que na def faire un résumé. Mhm. pour voir ci wàllu éducation. Mhm. parce que éducation je ci qu'il y a un enseignement à l'école mais effectivement ce que c'est. parce que bu ci avez un solo aussi et bu ci de pourcentage mais enseignement bi nga xam ne à la maison mooy xew également euh, si say dëkkandoo mooy xew aussi si environnement vous avez dit, jii bu numérique euh, numérique au service de l'éducation domaine bi dafa vaste trop. Mhm. léegi numérique ci bopam bala mhm. ñu ñëw ci éducation nga faram fàcceel ñuko d'accord numérique bi so xolé moy lu ñu woy digital dama xamone nak ci batu olof nan la koy tuddé on on continue digital <laughs> d'accord moy mooy lu ñu woy digital parce que mhm. domaine numérique dafa bëri en fait c'est très très vaste. d'accord donc moy lu ñu woy digital. mom également mën nañ ko woowee. Euh, ci walu euh, la numérisation donc bëri na bëri na domaine domaine dafa bëri trop mais bo xolé lu mu ci mëna wax ci côté bi euh, moy que tay métiers yu nekk ci monde bi. Mhm. yépp numérique daf leen influencer. parce que boo xoolee technologie day dox. Mhm. et vitesse bu muy doxee aussi dafa gaaw de trop. Mhm. donc il faut que aussi que élèves yi mën a adapté wu. mais bu ñu mënul adapté aussi à l'école. mais il faut aussi chez eux ou bien avec leurs parents ñu mën leen éduquer ci wàllu boobu. tout à fait donc loolu. <clears throat> li ma ci faral di li ma ci bëgg yokk rek moom mooy ni que bu ñu waxee numérique bi aussi euh, tout le temps dañuy génnee ay problème par rapport ak le numérique et cetera xale yi ñu koy utiliser. Mhm. dañuy génnee rek moom mooy lii euh, monsieur luy màgget Ndiaye wax léegi ne du euh, numérique dafa bon. mais naka la défé la part des choses pour xalé bi xam lan mo ci bax ak lan mo ci bon alors euh, lool tamit dina tax ñu interroger wu ñun ñëpp ci est-ce que préparé wu nañu ñun parents pour accueillir numérique bobu non pour mon ci yar suñuy dom ah, alors ça euh, euh, euh, c'est un problème pourquoi parce que mhm. je pense que nous ñëpp sommes ah, pas. en tout cas à commencer par moi. Mhm. sama domi ñom ma ci une a bien sûr d'accord mhm. donc je pense que l'éducation bi ngay wax. dañ ci aussi bolé bu baax parents pour que les mun ci jaarale éduquer les enfants. parce que ñom ci seen bopp dañ la ci effectivement tout à fait alors sans que nous ci dans waxtaan temps, ma ne ko aujourd'hui soo le gouvernement Sénégal. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle un plan numérique pour l'éducation mhm. et plan numérique pour l'éducation non seulement pour les enseignants mais aussi c'est pour les parents aussi mhm. parce que comme une euh, euh, une ko récente, l'éducation pas éducation mhm. donc boo les plan numérique comme les autres pays li fait koy permettre aujourd'hui de contrôler surtout par rapport aux réseaux sociaux yi nga qui ont utilisé. utiliser ce qu'on appelle des conditions parentales yi nga appliquer pour que ce euh, dôme, euh, nga tel ko yar ci côté mhm. mu mhm. parce que euh, tonton Lamine euh, ma le parce que c'est important parce que sujet bi le numérique au service de l'éducation donc mën nañ ci sukkandiku pour yar ni ñu wara yaré mais le problème qui se pose comme il faut étendre à tout le monde les enfants c'est bien vrai comme les parents les professeurs pour que ñu mën a euh, ci parce que comme je l'ai dit et je le répète les enfants nous ñu ci gën a mhm. donc pour ñu yar leen ci ñun dafay nekk problème bu baax a baax euh, dafa di xarala boo xam euh, pour yokk xam-xam mi ngi ci mhm. pour gëstu xam-xam mi mhm. ngi ci donc dafa laat koo xam ni dina la mën a tette ngir nga gën koo xam xam na nga koy jëfandikoo kooku mooy problème bi mu di woy jur yi

xarala bu yaatu la. boo xam ni euh, wax dëgg fa yàlla yemul rek ci kër. Mhm. ci fépp la. Mhm. fépp foo xam ne c'est dans waaw. ñoo fay utiliser numérique bi. Mhm. defe naa ni tett ci nit yi yokk xam-xam la ci moom. waaw te ñëpp nag ñoo ko war a jëfandikoo te xam nag lañ ciy def lan la. loolu dafa am solo. parce que li ngay woon xale bi le plus souvent. su fekkee ni dëppoowul ak li nga xam ne nii ca dëgg-dëgg. day bax ci xel ma ci xalaat ba ci xol ba ah ngir wérul ko ci lan ci ay valeur mhm. ah bu boobaa nak dang koy ñak parce que lolu mën ko ëmb bu yobale absolument alors monsieur mm. lopi euh, peut-être un mot par rapport ak numérique bi nga xamante bi comme niñ ko waxé lëmbe na àddina waaye nag mm. ñi ngi jéma a nak lañ ci jaare euh, pour euh, def lu bax ci éducation wu xale yi. waaw je pense que numérique lu bax la mm. bax la ci kaw comme on dit ni ñuy servir garab à bon escient. Euh, boo xoolee télévision yi d'ailleurs sax soo abonné dañuy am na foo xam ne boo fay dugg ñu laaj la code parental. dëgg la mhm. doo ci dugg. tout à fait donc je pense que aussi. Mhm. ci numérique ci téléphone yi noonu la ñu war yow ni nga wax ne. Euh, que sa waa kër ñoo la gën a xarañ kooku ñëpp la kër yëpp la <laughs> foo dem xale ndaw yi sax ñoo lay gën a xarañ ci ci numérique donc nag euh, je pense que aussi éducation bi numérique bi lu baax dafa ñëw pour def lu baax hein pour ñëw lu def lu baax parce que euh bo soxla dara simila ak rek nga jot ci. Mhm. comme on dit ah xew-xew bu xew beneen réew aussi simila ak rek ay seconde la nga jot ci. dëgg la kon nak numérique lu baax la. Mhm. mais xalé yi aussi pour doli len éduquer len nañ jaar aussi xalé yi bu ñu école buñu len leen éduquer seen kër. Mhm. am na parents yoo xam ne ñoom seen bopp dañu waxante dëgg éduqué wuñu d' abord booy éduqué seen doom. ah, ah? léegi booy éduqué aussi na ci boole éducation religieuse. daf ci baax. absolument te loolu lépp. te loolu loolu lépp ngay wax ni dafa nekk ci biir internet bi loolu lépp euh, sànq am na ku koy wax sànq nga baal ma tonton euh, ku koy wax sànq dafay permettre aussi ñuy rassembler mm. ak euh, li nga xamante ne mooy échange bi gaaw mm-hmm. parce que tey par exemple je donne juste un exemple comme ça tey soo nee Awa Diop tu, tapes tout de suite, tu as les informations sur Awondo Diop, mm-hmm. Mm-hmm. Lamine Diaye, etc. etc. Donc, les informations, ça va vite mm-hmm. et ça peut rassembler le monde. Bon, maintenant, comment l'utiliser pour euh, éducation, that is a question ok man li ma ci euh, côté boobu li ma ciy wax moom mooy ni que xam nga dañ ne le numérique au service de l'éducation mm-hmm. te bu ñu waxee numérique rek moom mooy ni que côté virtuel bi mi ngi agir mm-hmm. te bu ñuy wax côté virtuel dafa am nit ñi dañuy gérer seen réputation mm-hmm. fàtte gérer seen e right euh, parce que ce réputation moi ce qui est physique di mais derrière ça quelle image tu donnes à travers les réseaux sociaux à mm. travers tout ce qui est numérique moom la ñuy wax euh, réputation nous mm. ñu bëri ñi mm. tout le temps damay wax sama étudiants yi euh, faites attention parce que tey recrutement, recrutement yegg na tu xamante ne waxatuñu recrutement dañuy wax i recrutement tey jii mën recruter te doko oui effectivement Donc vous gis. Mhm. Euh, ah, dañ ciy utiliser ay plateformes à travers mhm. ay tests de recrutement les tests de personnalité Vous xamante yow mën nga confirmer l'entreprise, bi c'est un bon profil nit ki. Mhm. donc ce que mu nekk ay xarala yoo xamante vous dafa sori te li il faut éviter que ton passé te rattrape c'est important parce que euh, encore une fois il y a un candidat qui a été recommandé peut-être que mi ngi may déglu mais entreprise bi ñu recommandé de nous jël le temps de suivre candidat bi les réseaux sociaux Si nous avons un rapport ci candidat bi même candidat bi dafa dafa et ça se fait maintenant Ça se fait parce mmh. que euh, je parle sous le contrôle euh, d'un professeur, d'un consultant en informatique. Il mmh. y a un logiciel espion. Absolument. Il faut permettre de tracer les gens et les gens ne Donc nous gérer notre Parce que si vous avez ce bop, vous comme tol le qui loolooy e-réputation léegi yow nga war a tànn yan grain nga ciy def ak naka ngay euh, traité grain yi yan grain nga ciy def mooy ñan nga war a nekkal en contact ci réseaux sociaux yi très bien parce que du on bëgg xaritool rek xaritoog moom. Mhm. ak après naka gérer yow paramètres comme on ngi wax affaire jàng et cetera je pense que actuellement ci logique solution la ñu à a ak gouvernement bi. ak l'État pour ne euh, pas dire pas sanctionner mais sensibiliser et mobiliser je pense que euh, alors on dit de l'autre côté euh, que dañu nara bientôt jeexal li nga xamné chronique mhm. mais nga allons ak ñun ci ay ay une solution ay mhm. réponses à à plusieurs questions par rapport à l'importance am importance li le numérique au service de l'éducation. Mm, très bien alors donc faut me commencer juste d'abord appuyer par rapport au mot, parce que mhm. mhm. aujourd'hui les recruteurs les employeurs sont recruter au-delà même de ce profil professionnel comme genre LinkedIn li ñuy xool mooy profil Facebook. tout à fait et effectivement loolu déjà dinañ aperçu sa personnalité euh, effectivement mais boo xoolee ci l'éducation, éducation. Mhm. numérique yu muy apporter comme avantage. Mhm. Euh, déjà wax nañ ko accès à l'information. parce que tu as dit, xoolee pour les ressources pédagogiques. Mhm. lu yomb les doon. pour les partager également lu yomb les aussi. donc en un clic mon nga partager avec une centaine de personnes mieux que pour les supports papier. tout à fait bon NB aussi moi, dématérialisation bi. Mhm. le euh, tous les documents sont numérisés. oui mais la troisième option aussi moi, l'interactivité c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui xale bi moom tey mu même pendant les vacances ils na def ce qu'on appelle des auto-formations. ah oui tout et il y a ce qu'on appelle les MOOC. qui mhm. sont très très euh, disponible sur l'Internet, Berina. Mhm. Tu viens là-bas, tu fais des cours gratuitement mhm. et après, il y aura tout le temps quelqu'un ou bien même le service qui interagit avec toi. Oui, oui. il te dira que tu as trouvé, si tu as faussé, c'est la même chose. Oui, et à la fin, tu as, tu as ton résultat. Et c'est ça qui va amener l'élève à euh, mon développer culture auto-formation parce que apprentissage de forme solo mhm. déjà élève Lumi jungle il faut il faut avoir la passion la passion et l'envie mm-hmm. d'apprendre mm-hmm. La c'est femme sur le si di mat ak yenen ak mais passion bi c'est quelque chose d'important mm-hmm. et bo les femmes terminer aujourd'hui nous avons révolutionné révolutionner suñu système éducatif parce que les élèves ils peuvent être bien dans les matières scientifiques mais ils ne comprennent pas en fait ces matières scientifiques parce que ça fait deux choses aujourd'hui mun nañ leen jox texte texte wala jox une série d'exercices il y série peut-être 20 sur 20 mais en réalité le contenu. est-ce que vous comprenez et que contenu la compréhension bi. Mhm. aujourd'hui d'avoir une autonomie technologique. tout à fait développer. parce que mhm. après on est obligé d'aller sortir pour aller en France bon ça tout tout parce que les informations sont partagées. Ah ben etc. mais aussi il faut que les professeurs eux-mêmes nous aussi ñuy certifié Mhm. parce que évolution numérique lui muy c'est à une vitesse exponentielle mhm. donc tes métier yëpp la laal mhm. bon quelqu'un qui donne un exemple très simple Qui du marketing fais defee marketing classique boo génnee d'un petit entreprise Bon ba d'une dee parce que nous, y c'est quelqu'un qui a fait du marketing digital parce qu'avec le marketing classique absolument li nga euh, toucher si le marketing digital te permettra de toucher donc, en une seule journée, 10 000 beaucoup ah, fois plus. oui. C'est vrai. c'est ça, en fait, c'est là où il faut voir, parce qu'il mhm. faut le gouvernement aussi qui participe. Il mhm. y a des écoles comme l'IAM, donc, etc. Mhm. Donc, ce sont des écoles qui sont adaptées sur l'évolution. À chaque fois qu'il y a des choses, c'est des choses nouvelles, automatiquement, ils ont aussi des professeurs allez vous mettre à jour et c'est mhm. des certifications gratuites. très bien et et les ci gën a neex nag euh, que amna yenn école yi nga xamante ne bi euh, euh, primaire et et même en en dessous. yi nga xamante bi ñu ngi commencer di xaw a jàngal xale yi. Mhm. lu jëm ci numérique bi et je pense que suñ ci demee noonu di màggaale ci ak ñom je mhm. pense que voilà dinañ ci mëna am dara luñ ci jëlé parce que familiariser vous justement avec avec cet outil là. c'est c'est important pour les enfants parce que kenn mënu ko kenn mënatu ko daw donc je pense pense qu'il faut y aller, non seulement, on l'a dit tout à l'heure, avec les parents, avec les enseignants, mhm. avec euh, euh, les élèves et mhm. avec tout le monde dans mhm. tous les domaines d'activité. Parce que moi, parce que euh, c'est dans tous les domaines où c'est bénéfique un dernier mot dernier mot juste pour appuyer li par rapport à professeurs déjà parce que Denis intervenu aussi sur l'université, mais da rendre compte que yenn professeurs yi dañuy bëgg rester ci cadre classique mhm. alors que Denis gérer génération on les appelle des natifs technologiques. c'est clair. donc euh, c'est normal que mu un décalage entre les bi nga en un clin d'œil faut trouver information bi nga nekk diko dicter. <laughs> donc loolu yep ñu war ci def attention parce que fay dem ba fay décrédibiliser professeur bi nek sen kanam mom moy waral parfois yenn professeurs yi bu ñuy intervenir étudiants yi duñ leen déglu mhm. wala dañuy préférer daw cours bi parce que dañ naan xam voilà ils sont en avant donc il faut que ñu mettre kii euh, beneen euh, à niveau tout le monde euh, à niveau tout le monde voilà et <laughs> mise à jour et peut-être pour terminer daf ci dem sax bo côté bibliothèque numérique yi nga xamanteni mhm. euh, en un clin d'œil tu as un euh, e-book gratuitement une plateforme gratuite qui te permet d'avoir accès à presque livre nous édité ci ah, alors c'est vrai que demain ñi ngi mhm. euh, recevoir une dame qui s'appelle Cécile Chakan Ben, way bo xamna plateforme pour aider les enfants à faire leurs devoirs mhm. donc euh, je veux dire c'est aller très loin et c'est gratuit mhm. vraiment euh, côté numérique bi mën nañ ci jappalé bu tout temps qui et puis pas tout temps qui comme on l'a si bien dit depuis tout à l'heure en tout cas ñi ngi remercier madame Awa Diop de remercier invité wam monsieur Mohamedou Moustapha John Touré des consultants en informatique qu'on a jumtukaay xarale yu bési nañu xol naka lañ koy utiliser euh, pour euh, gëna éduquer euh, les populations j'allais dire mbokk yi ñu xuus ci émission tam tam ñëw ak yéen ci ijab du jour ñu xol nak tay suñu xarit mage magique fan la jëm ak ñun ak muraay bu rafet bi. أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي waaw kon nak euh, mbok yi gis ngeen li nga xamantene bi mom lañu euh, suñu xarit euh, mage magique indil tay tonton Lamine daal mhm. moo ko tuddee mage magique kon nak tonton mo def rek doonul jébbal le cadeau gi ah nga wax ci muraay gi rek elle restera toujours magique waaw waaw éternellement magique. Mhm. mais dafa am benn magique boo xam ni. waaw ngi nekk sa wet. waaw koy waxee Ndiaye Diop. <laughs> ndooy xam nga ban ban ban kii waaw dañ ciy <laughs> dafa am benn benn affaire boo xam ni moom la def moom. waaw. Euh, dootul mage mhm. nga dafa musóor ak ijaab <laughs> mu nekk musóoroo ijaab. très bien kon nag tonton ba pare ni nga ko ci defee musóoro musóoro ijaab <laughs> tout simplement parce que daf ko laxas ah. laxasaat ko waaw xaw ma nu mu ko def ba dem Rwanda dikk <laughs> ah d'accord ok ah. alors justement ñu ñu tourné wu soo ko seetlu waaw ñu tourné wu ci sunu euh, euh, ñu bi euh, alors c'est vrai que gis nañu à chaque fois. Mhm. Euh, et nous saluons justement nos sœurs. Mhm. ñi nga xamante des bii des def muraay yu rafet vraiment mhm. façon mu tissu bu cérémonies, euh, ci cérémonie et cetera. avec euh, des bijoux yi ci et tout. et et comme nous ko tonton Lamine je pense que yow tamit xaw nga def sa façon. Euh, euh, à, la, à, la rwandaise. <laughs> À la rwandaise, voilà. <laughs> Alors je pense que si, si dans tous les milieux et, mm-hmm. n'importe où, je pense qu'on euh, peut arriver def ay turban def façon mm-hmm. yi nga xam ne moom mage etc. Pareil. pare du la jël temps bu en fait. oui et, et ça coûte pas cher. Moi, mm. <laughs> surtout ça coûte pas cher parce que cheveu cheveux Naturels, même 400 000, oui <laughs> tout à fait. pour salon pour maquiller ça peut te prendre une heure de temps. nous c'est affaire de deux minutes trois minutes. tu as fini tout à fait euh, ah non ça peut faire plus 400, on se sent bien avec dépend alors monsieur Touré euh, balaa ma ñëw si tonton Lopi euh, gis nga euh, légui sénégalaises yu bari voire africaine dans le monde ñu légui de dañuy alors on a choisi tous les vendredis il y a une façon parce qu'en fait il faut dire que comme ni ma ko cérémonie bu nek amna mourayam, lieu boy dem bu nek amna mourayam et voilà c'est très joli et je veux dire ñi ngi adapté wu ci pour beaucoup de choses alors et Mom, fait une recommandation de. Euh, absolument ci ñi nga euh, musulman et du et même au delà de ça. Mhm. Euh, d'habitude boo gisee jigéen buy muuru foog nga bàyyi xel ci moom. oui parce que ni ngay njëkk a xool mooy ni en fait. donc c'est quelque chose qui est très naturel. Mhm. et vraiment bon en tout cas moi ce que je recommanderais à tous mes sœurs. ou bien tous mes mamans. vraiment mhm. de d'aller de. ñu góorgóorlu ci daal góorgóorlu ci ci ci wàllum. dégg nañ la dégg nañ la bu baax solo la nañ la <laughs> alors euh, tonton Lopy c'est vrai que dañuy wax mouray mais bu ñu gissé par exemple euh, man euh, ay ay religieuses ñom ñoma yar mhm. donc les sœurs gis nañ ni dañuy muuru. Mhm. on voit aussi que ku dem ci pap bi. Mhm. pour le voir etc etc et am le minimum booy teg sa bopp donc mu nekk ay mbir yi nga xamante ne bii euh, xaw nañ ko xaw nañ fa daje tamit. waaw muuraay moom c'est recommandé. Mhm. par les deux religions révélées hein. absolument soo gisee les religieuses ah doo leen gis bopp nen. jamais non non. Mhm. et puis muuraay fii bon def nañ ko mot mais dafa rafet. Mhm. Mhm. j'adore. absolument j'adore mhm. surtout les femmes sénégalaises. Mhm. j'adore

tellement que Daniel Lobby je crois que mhm. de Sorano Daniel def Benelink parce que de que beaucoup de Sorano. Mhm. génération yi di ñëw ba ñoom si. Mhm. ni def parce que il est à présenter encore. que les gens sachent que il est là.

fi dañ ko xaw nasaxal pour ñu xamul mais am na ñu xam parce que métier la boo xam ne euh, dañ ko jàngi woon école nationale des arts d'accord boobu mu ngi fii Corniche mhm. alors ñu génn ci diplômé ñu ñëw Sorano mhm. ban année euh, en 69 neuf ñu ñëw fii ñu ñëw Sorano fekk inaugurer nañu théâtre bi ba festival bi préparé nañu nous nañu ci festival aussi tout en étant à l'école à l'école des arts. On, avait des élèves mhm. qui étaient déjà là. Il y avait Fatim Diagne, il y avait euh, Mané, tu avais Koulimbay, etc. Mhm. Euh, Omar Sek. Oui. Ouais. Qui était là, ils nous ont devancé de 3 ans. D'accord. On était encore à l'école lorsqu'on euh, bi par nous nous ñu mhm. rejoindre nous nous rejoindre l'un ak mhm. mhm. bon comme euh, tout comédien. Euh, on a représenté le Sénégal. le Sénégal un peu partout dans le monde avec ans un peu partout. Euh, quels sont justement, avec ce président-là, ce président poète qui aimait la culture, quels sont les pays qui avec représentation Il a marqué sa carrière Il m'a marqué, moi, euh, à l'académie. L'académie française. Française. Nous avons dit tout. Je fais une grande pièce qu'on appelait Macbeth de Shakespeare. Très bien. Alors, Sénégalais, yep. -hmm africaniser tout costume avec très bien Niger avant mu ñëw. Mhm. waaye bi ñu joué ba pare mu ñëw. mais bu mu yegg see talatuñu mhm. mais d'un côté la la ca j'en ai la chair de poule. Mhm. alors non mais vous savez je sais que bon j'ai mes artistes je une école là j'ai des vrais artistes. ah ben monsieur le président vraiment ça euh, artiste. Uh-huh. Euh, réussir nañu foo xam mm-hmm. comédien français il dañ fa échoué tout à fait et on a fait beaucoup beaucoup beaucoup de choses dans les pays mm-hmm. jël nañ fi nek nañ fi médaille d'or mm-hmm. en Algérie en 69 ça fait 49 ans presque 50 ans porte-drapeau du théâtre africain d'accord dans leur livre d'or très bien alors nous mhm. représentons le Sénégal un peu partout on a fait le monde presque le monde entier. tout à fait c'est comme le balai, mhm. comme nous. Mhm. bon ba ñu toogee toc toog la culture commencé. alors alors que nous une culture. culture africaine kenn waru ko na sax ñi ñi juste euh, benn réaction euh, par rapport ak li wax parce que je pense que muy man di keneen euh, sa yaram daf si daw et on savait que comme nous mu ko waxee j'ai parlé de grands moments ay ay moments yu mag la woon je veux dire le président Poète Senghor euh, à l'Académie française et euh, artiste sénégalais dit que jouer une euh, pièce au Shakespeare africanisé ko sénégalisé je pense que c'était des choses il n'y a que tonton Lamine qui peut mhm. dénicher des personnes qui peuvent nous raconter ces histoires nous nous en avons besoin M. Touré d'accord alors, euh, je pense que déjà tout à l'heure, quand je suis entré, j'ai été surpris. Mm -hmm. On me mhm. c'est Tonton Lamine ah. avec euh, M. Lopi. Mhm. Donc, euh, plaisir là déjà pour Bokangyam mhm. Plateau. Et ce sont des icônes aujourd'hui. Je pense que le ministère de la Culture, on est les Mounokungé. Mais nous également, l'Imendi Nyan Moui, Mouni baisser les bras. Parce que on a été en train de parler de numérique. Oui. Pour dire un exemple simple, mm -hmm. Nigeria, la femme, une dame, bon, j'ai un peu oublié le nom, euh, mais elle est multimillionnaire. Oui, oui, j'ai vu. Alors, nous, il pour oh, cet argent-là, mm. c'est juste, elle a sa page Facebook, euh, YouTube. J'ai vu où à chaque fois il y di enregistrer mhm. ay ay vidéo ou les mhm. gens donc de plus en plus aujourd'hui mhm. le numérique également c'est un monnaie d'échange donc sommes aussi à leur niveau on a une monnaie organisée euh, pour essayer de mettre ça en place mais il leur faut il leur faut une certaine formation effectivement il leur faut une certaine formation et je pense qu'avec le ministère de la culture tout tout tout devrait être ah. possible euh, de ma ni logique qui est ça je crois que l'accompagnement absolument Euh, idées yi ñu am. Mm-hmm. boo génnee ci théâtre bi bari na. li nga bëgg a def bari na. Mm-hmm. mais foog nga toog ak ñoo xam ne nii dañ lay mën a gunge. ci mm-hmm. say idée. ndax mu mën a taxaw pour que xale yi mën ci jëriñoo. parce que ñi nekk dans mu monde du théâtre bari nañ. bari nañ car car toile la te ñoom ñëpp. Euh, euh, li ñuy aspiré mooy mel ni Daniel Lopy mel ni ki ñu fi indi woon muy Ismaïla Ismaïla Cissé jaar na fi ak euh, ñeneen comédiens yoo xam ne nii bëgg nañ sax non ñu raw leen. alors tonton Lamine je pense que du ñu def rek lu dul dem xool yi. Uh-huh. Euh, benn extrait euh, bu nga xamante ne bi tonton Daniel joué na ci. mën a continuer nag waxtaan bi ñu dem dellu si. Ton fils chéri est là. Tiens, tiens, tiens le fils qui a honte de son père gis nga de àddina nii rek la buggoo sa baay waaye sa frère moo jabaram indi nañ ma fi defal ma lu ne nag bonjour oh, papa teel sa loxo ay papa amul ay papa Donc bu bëggul baayam du ko jox loxo papa wax dëgg xoola nañ wax yi tamit moomoo kay ah, ma dem su jenn ñëwee. gën a ko ah, ko ko foo ko gis nag mu ngi xoggaliku mel ni yor ay milliards moom leen benn tel mère tel fils. yan dafa yaakaaroon ne moo ma gën waaw wii ma da nga bàyyi sama yaay tranquille bés bu ma la diggati nga wax sama yaay bàyyi ko doo def tous dara nga bind wii ma bàyyi ko non xaaral xaaral xaaral sama yaay yi sama yaay yi rek doo def dara bàyyi ko mu ñëw. kaay dóor ma bàyyi ko kaay dóor ma dara na doon yéen kii yaa ngi fi bàyyi. bàyyi ko mu dóor ma. yaa ngi fi bàyyi. ma ne Thierno moo amul fulla. ma ne ñii du ñu yow ñii du ñu yow. non bàyyi ma dem. su jënd ñëwee nga ne ko jaroon bàyyi ko mu dem waaw d'accord bàyyi ko mu dem mais baax na il est hôtel là la boo ko gis dem na dafa yor ay milliards te yow manque de l'argent boo jëlee boo bëggee moom may la ci waaw comment waxal rek. moomoo mbal mi ngay dee. alors tonton Lamine nag euh, affaire yi jaxasoo ci biir. ah torop ñu ngi parce que bon des fois on voit des choses yoo xamante ne bii c' C'est vraiment c'est très sénégalais te mu nekk ci extrait wu benn série bu nga xam ne mi ngi daw euh, ci benn télévision de la place euh, muy Idole. Mhm. et justement on en profite pour féliciter ñi nga xamante bi ñi ngi koy def ñi koy jouer mhm. euh, di daw ci 2S nous saluons nos amis de 2S. Mhm. tonton Lamine. waaw euh, euh, bi sax du théâtre encore. kii téléfilm le tout. il faut faire la différence. absolument téléfilm et je crois que fi lañ ko jité studio bi fi fi lañ ko commencé par des captations par ah, décaptation nit ñi tuddee ko théâtre théâtre théâtre ba fi mu nekk lang ci né théâtre mais mhm. au fait yoyu ay téléfilm té mhm. yoyu it mhm. moom it ci xam-xam ah amna ci xam-xam du bi rek la nekk amna benen eh, def nañ eh, nijaay nijaay ak jiastu muy joué rôle du docteur ouais mais mais tonton dama bëgg xam parce que fini, dañuy gis ne que yow yaa ngi ci personnage papa bi Yangi, ngi parce que Yangi, réalité lañuy gis ni yangi wax ak sa dom di wax que sa yaay def ci extraordinaire hein parce que euh, rôle acteur je veux dire parce que je n'aime pas trop le mot comédien. parce que ça mhm. fait pas sérieux mhm. bon acteur rôle acteur. je lu ko ci peau personnage. absolument buñ ñu la un texte. Mhm lire dans sa globalité d'abord mhm. histoire bi ok personnage bi ñu mhm. étudier mhm. les rapports qu'il y a les relations qu'il y a entre toi et ton partenaire Absolument. Par exemple, si je dois jouer avec Yaham ou Madame, bonne relation, Là, c'est des relations, bon, euh, paternelles ou des euh, relations amoureuses, ou des trucs comme ça, ainsi de suite. Je vais donc étudier nga ñëw transposer sur la scène. parce que tout ce que nous faisons pour euh, un acteur un acteur de théâtre c'est l'observation et l'imagination la vie on dit que la vie c'est le théâtre euh, le théâtre c'est la vie mais la vie n'est pas le théâtre alors tout ce que nous transposons sur scène nous l'avons mhm. dans la vie tout à fait mais ça dépend de la manière dont nous transposons mhm en tout cas ça a été bien fait oui je euh, mu wax que dama parce que maintenant, <coughs> nag dañu dans ci cadre ne euh, dafa mhm. parce que c'est un peu compliqué quand tu expliques que acteur le rôle de la. le mhm. comédien bi mhm. parce que l'acteur il est déjà le personnage. mais le comédien peut ne pas être le personnage. d'accord je différence ouais, il a parlé de texte mhm. de l'étude de texte de femme importance fille yu ñuy def dit du texte ne le ngi D'accord. d'accord ont improviser du matin au soir hmm, wala nous ñëw le wax jox dit conduite rek ne pas boire ni nga defal de pas ont de faire mais le mot est tellement vaste que bi niveau hmm. mais métier des na ci xam-xam yo xam buñ ko fa doon tari di no xoto xoto xóot dem nañ ba dugg ci li ñu la génétique. la génétique c'était un ensemble. Mhm. la génétique c'est le sentiment. Mhm. et l'émotion. mom moom doon bëgg wax légui mhm. les acteurs c'est ce qu'on leur demande. vos sentiments euh, ressortez-les émotion. Très bien. Et c'est le visage Exactement. l'émotion. Tout à fait. Parce que le visage, c'est le mhm. masque. Absolument. Et tu, ah. qu'est-ce que tu as constaté mhm. En premier lieu, c'est le mhm. visage. Tout à fait. C'est ça qui est important déjà quand tu es acteur. Tout à fait. Mais le comédien, il est là ça figure dans la règle des trois P pensée parole et plastique. alors je am na dire euh, lu ma parce que comme def nga euh, euh, planche yu etc. et cetera et cetera les pires moments parce que des fois on peut arriver di def théâtre et à un moment donné on perd le fil de ses idées. ban moment. le texte ou les idées. oui le texte quand je dis ah. les idées je parle du texte Bon moment ak ban dëkk la arrive, mais ce professionnalisme je le dessus xam naa problème sur scène. Mhm. problème de trac lay doon. Mhm. les pires mhm. pour un acteur de théâtre y a ñaari phase trac bi. waaw ak trou de mémoire. exactement c'est le c'est le mot en fait trou de mémoire. le trou de mémoire pour arriver sur scène. Euh, dafay mel ni àddina su tukki la mais. <laughs> il a raison parce que. du cinéma. Le cinéma, on peut arrêter et reprendre. Tout à fait. Alors que sur scène, c'est parti. Mhm. On ne toog ko dabo. c'est nag. Mhm. sa intelligence. ak sa partenaire. Mhm. moo la war a aider. fait que sa partenaire. des des fois ce qu'on appelle euh, la mémoire auditive. bu ngeen di répéter day xam sa réplique nga xam réplique ok léegi en ce moment bo amé trou de mémoire peux na la gàgganti. ok ci diggante bi ngeen continuer. Mhm. yow yow sa ce pire moment boobu fan la fan la arrivé woon. oh ça arrive rarement. Mmh. mais ça arrive souvent quand même ça doit arriver. d'accord ça peut arriver. <laughs> tu ne sais pas où mais des fois ça arrive. Daniel c'est humain. tontu ko ci li mu la wax. fan ah. la la arrivé. fan la arrivé. oui avant bah, en fait d'accord. Arrivé même au théâtre Sorano. Ok. Au théâtre Sorano. Mhm. Mhm. Mais pas à l'étranger. À l'étranger, non. Avec quel texte Hein Avec quel texte Je ne me souviens plus. Hein. Mais c'est arrivé quand même au théâtre Sorano alors ça on nekk parce que culture on aime bien alors Awa euh, peut-être euh, euh, amener une question pour a je j'ai même pas de question <laughs> pour dire vrai hein, Yaham. à chaque fois que nous ci plateau la question que je me pose. oui que le gouvernement n'a pas assez organisé ce métier-là quitte même à ce que nous ayons une carte de comment il s'appelle de certification comme quoi tu es artiste euh, euh, professionnel. parce que bu ñu ngi ci ñu koy def ah. ah, ñu koy def ñu ci ñu ci ñu ngi ci ok euh, comme ñi ci est-ce que am na aussi benn contrôle derrière bu ñu teg ba nga xamante dina permettre en fait yenn dérapage yu ñuy gis ci yenn film yi ñu mën ko maîtriser tonton Lamine mën na la tontu. waaw xam nga mos naa fekk benn réunion boo xam kuréel bi ñu fi teg la woon pour mu toppatoo affaire u téléfilm yeeg yooyu donc biñ ci doon waxtaan ñoom li ñi gën a atténuer wu mooy yenn langue écart de langage yi mhm. saaga yeeg ak kii yeeg yooyu ñuy constater. Mhm. ñu ne lan moo koy motiver nit ki di dem di dem di dem ba saaga sere mu saaga comme ça mhm. kii bi est-ce que au départ réfléchir nañ sur son texte

carte professionnelle pour xamni ku nek dinañ xam. ni ni eh, est-ce que ay lañu acteurs lañu ñu jox comme ni mu waré bu ko prêter attention ci liguey bi nga destiné. Mhm au public sénégalais. Très bien. Mais alors, alors euh, euh, euh, moi je peux terminer par là. Est-ce que <coughs> dans ce cas il y a un critère de sélection permet permettre ñu ne d'accord on certifie que rôle bii nii rôle. mais réflexion la laaj ñoo ngi mm-hmm. ci mm-hmm. réflexion beaucoup. Mm-hmm. fi mu que avancé nañ ci lol lool lool euh, statut ñu pour xam qui est professionnel qui n'est pas professionnel neexut a jël rek daal di ne voilà nii la ñu doxalee. wala exactement je pense que tonton la ñoo ngi ci réflexion voilà comme niñ ko xamee ñu ngi ci réflexion yi parce que je pense que c' est des gens yu nga xamante ne bi am na fu ñu leen war a teg en tout cas euh, euh, mi ngi commencé euh, en 1969 c'est ça. fële ca Sorano donc ça fait 49 ans presque 50 mhm, ans. Mhm. je veux dire mënuñu ko tënk ci quelques minutes mhm. d' émission. mais en tout cas on a essayé mu wax ñu tuuti parcours am et c' était magnifique J'en ai eu des frissons. on va terminer tonton tout à fait. Euh, li ñuy terminer rek mooy di ko gërëm di ko mm-hmm. di wax tamit euh, le public sénégalais mais Daniel Lopi il existe jusqu'à présent N'importe mm-hmm. qui di wax naan mag ñi nga xam ne nañu. parce que mm-hmm. théâtre bi kenn du ci màgget ba Mm-hmm. donc euh, loolu dafa am solo. Mm-hmm. <laughs> waaw kon ni ma ni ma commencé woon. kon lay lay lay lay tëjeewaat chronique bi mooy. mag mat na bàyyi cim réew. en tout cas monsieur Daniel Lopi ça a été un honneur hein, pour nous de vous recevoir parce que li nga def ci euh, culture euh, Sénégal bi dafa am solo te dañ koy wax la culture est avant ak mooy mujjee mooy njëkkee mm-hmm. kon nag rendre le hommage de toutes les façons même au niveau de notre petit plateau là je pense que ça fait plaisir à à certaines personnes ñi nga xam ne xam nañ la bu baax a baax ñu def rek di la ñaanal bonne continuation di la ñaanal gudd fan ak mhm. wér te mhm. inshallah allah dinañu xool leneen naka la def pour gën a fësal liggéey yi ñu fi jot a def parce que mhm. quand même cinquante ans de carrière il, il, il s'est passé des choses. merci beaucoup. merci beaucoup. s'est passé des choses. Merci. Alors, moi, je me toujours, moi, nous, nous, ñun Man, Lamine et tant d'autres, l'État n'a même pas eu hein, l'occasion de quand même nous décorer. Au moins, c'est la moindre des choses. Ok, d'accord. tu vois il décore des gens yoo xam ne xamoo fu des trucs comme ça. Mhm. mais bon. en tout cas nous avons été des dignes ambassadeurs de notre pays. wax nga ko fi ko ah oui parce que ya ngi wax ci radio télévision du Sénégal donc je pense que les autorités nous nous regardent et nous suivent. bien sûr la nga wax defe naa ne mënu ci mhm. en tout cas daal ñun ñi ngi xaar bés bi nga xamante dañ di décorer RTS2 Inch'Allah allah dana fa taxaw te ñu ngi ñaan mu gaaw. ah oui merci beaucoup ça a été un plaisir mbokk di recevoir monsieur Daniel Lopi di acteur parce que néna comédien bu bugg ko noonu acteur bu def liggéey bu rafet fi ci Sénégal di remercier bu baax baax euh, tonton Lamine Ndiaye waye di euh, jox cadeau euh, gi monsieur Touré Mouhamadou Mustapha John Touré di consultant en informatique mi nga xamante ne bi machallah indil nañu ay xam-xam ñu bayila nga lancer un dernier message. D'accord. Dernier message, Bichena, dama lancé à l'endroit du, gouvernement. Donc, vous euh, ci que euh, gouvernement euh, surtout le ministère de l'éducation nous mettre en place une plateforme numérique pour l'éducation parce que il faut que nous accompagnions pour demain pour ce métier de demain et évolution numérique bi nekk na lo xam ne wax naa ko sànq euh, dafa dafa dafa gaaw a fait de évoluer absolument et que lolu ñun aussi war nañu adapté mhm. mais di wax parents également que sen dom yi dañuy jëm leen encadrer euh, exemple moy terminé mooy boo xoolee euh, dans certains pays européens euh, au-delà de certains âges booy ñëw di jënd tablette tu peux l'acheter librement hein. mhm. mais da ngay gis ben petite note mhm. et note bi daf lay suggérer ne la ah E c'est pour les enfants de plus de 12 ans. D'accord. C'est des enfants de plus de 15 ans. OK. Là aussi, il faut alors que, exactement. Mm-hmm. Alors que aussi, il faut que Absolument. Donc, c'est ça. En tout cas, nous les remercier. de la souhaiter euh, bonne continuation. Je remercie beaucoup, Tonton Plaisir de euh, le ci antenne bi ak mm-hmm. rien que pour RTS2 euh, saison bi émission ak ay yi nga jërëjëf. ça a été un plaisir. di la gërëm di la sant euh, di sant tamit euh, ñi yàgg jàkkaarloo ko ñun euh, di wax ni rek ni le plaisir fii lañ koy fekk. Mhm. te te incha rabbi daañu ci fekk it leneen lu raw plaisir boobu. incha allah ni jërëjëf la merci beaucoup Awa ñi ngi kontaan bu baax a baax. li ñu tamit am solo plaisir de te retrouver yow tamit la mm. semaine prochaine. <coughs> Merci beaucoup Je mm -hmm. je remercier, remercier aussi l'équipe du cabinet Active Consul, je ne cesse de le dire, mm-hmm. de voir que aussi nos portes sont ouvertes à toute personne parce que ñu ngi évoluer ci développement personnel installation mhm. bibliothèque et organisation d'événements merci beaucoup les portes sont grandement ouvertes merci beaucoup yéen i tamit euh, ñoo ngi di remercier safo RTS de MOKI de remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su nous euh, dañuy ànd ak ñun euh, rendez-vous suba inshallah pour pour une émission tam tam bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne au revoir